mon ami moom frère Abdoulaye euh, Diop maa ngi lay kontaane bu baax Yacine Pouy euh, digital euh, RFM ñu ngi suñu page Facebook RFM RFM l'officiel ñu ngi lay kontaane bu baax auditeurs yi nga xam ne ñu ngi ñuy déglu ñoom tamit ñu ngi leen di nuyu internet yi seetaan ñu ngi leen di nuyu bu baax seen journal des faits divers xalaas beneen numéro ak Mamadou Ndoye Bane baan mi ci mask geeg verre yi baan ak Mamadou Mohamed Ndiaye baan maa ngi lay kontaane maa ngi lay ziar waa ji maa ngi lay bëggee di ziar Ndiaye di ziar waa réew mi yëpp ma leen di ñaanal jàmm yàlla yàlla def jàmm ci réew mi def ko ci biir kër yi def ko ci bërëbu liggéeykaay yi def ci réew mépp mm-hmm. na ñëpp am jàmm na am jàmm corona ngi génne fii nit ñi mën a am jàmm. dëgg la waaw. ñu ziar de. waaw maa ngi lay bëggee bu baax maa ngi ziar Ndiaye. maa ngi delloo ziar a ngi dox. waaw maa ngi sant bu baax a baax. maa ngi nuyu inspecteur Ba. maa ngi nuyu waa Sénégal maa ngi nuyu également partenaires ñuy àndal ci xalaas Euh, lu ci mel ne comptoir commercial de plomberie du Sénégal. Mhm. lu ci mel ne sérum américain bii di Laris mais également beneen partenaire bu ñuy àndal ci xalaas mu di établissement waa Kër Serigne Touba Fallé frère yi fi indi vite fait yi. Mhm. ci kanam tuuti dinaa doxal ci bagages yi. ay ci am na solo. Mhm. Euh, ban loo indi. waaw li ma indi day tey dafa am benn artiste bu tudd lan Modou Ndiol. Modou moo doon wax sànq. waaw Modou Ndiol comme Modou Ndiol. Ah. Ah. séeréer la ok ok ok. Modou Ndiol. waaw livreur. waaw Modou Ndiol. waaw defe naa livreur la. Uh-huh. waaw. Uh-huh. dafa am benn femme bu ñu contacter nii. Uh-huh. waa ji dafa li ngeen di yër lu mu. <laughs> yéen a ngi yër. yëruñu dara dañuy wax tan suñu. Ah, man ngeen di jëw. non lu Modou Ndiol mi def. waaw loolu yow balaa ngeen dem ci Modou Ndiol mi euh, première dame démb dafa génn wax. nga bokk ci gouvernement bi xanaa di nga ci sànni ay kàddu balaa ngay avancé. moo du njool avant ñu ci avant ñu ci dem kay. non première dame dama koy féliciter rek li mu def démb da ko da ko yeex a def réew mi sooy def lu baax danga koy war di di wane. Mhm. yu ci bari nag yu mu wax yoo xam ne man mii mën naa ni seede laa ci. yow mii waaw man moom man moom du ma ni kenn xamoo yonent baa ngi lay nuyu. te gisoo ko te gisuma ko. Mhm. Euh, depuis 2012 ak léegi. ñi faju ci ay sénégalais mu jaarale ko ci man kenn xamul mu tool yi ci buntu rajo yeeg yu buntu tele yeeg yu ci baree bari ñoo xam ne wax dëgg yàlla ci man mii leen jaar ba faju ci ñoo xam ne dem nañ fi Tunisie faju ji dem ñëwaat faj seeni bët loolu moom wax dëgg yàlla ba mu koy wax ma koy dégg dem moom j'étais vraiment fier parce que yàkkamti woon naa mu def communiqué ci loolu waa la ci des nag yeneen yi mu wax nag moom intéressé wu mais waaye li jëm ci wàllum faju bi moom téwóor la ñu ngi ko ci félicité bu baax a baax ñu koy ñaanal yàlla na ko ko yàlla fay waaw yàlla en tant que yow yow Ndiaye en tant que première dame bu génnee wax pare peut-être am nga loo ci sànni parce que première dame euh, quoi qu'on puisse dire c'est euh, la première dame quand doomu aadama wax na ko sax mhm. euh, soxla woon nag communiqué mhm. am na ci mbir yu mu nekk mhm. am na lu lu desee leer ci boppu nit ñi am na lu ñu koy waxal génn na def na ciy leeral loolu kay xanaa peut-être ni mu ko ni ko defee rek. waaw man de loolu lay rafetlu. ndax benn mooy bu fekkee da ngaa génn di wax en tant que première dame. Mhm. say wax bariwul. Mhm. nga génn waxi wolof. déjà. Mhm. péng euh, def ko ak simplicité bi mu wane démb. waxuma nag ci fond beeg man maa ngi ci forme bi. simplicité bi mu démb. toog ci télévision nationale. leeral fa ay ponk. Euh, ñu bëri gën ko cee xam duñ def lu rafetlu ko rek. Mm-hmm. def lu dul rafetlu ko dèjà moom li koy dégg bariwul mm-hmm. Mm-hmm. Ah. waaw rafetlu ko rek li des nag ku nekk ak sa jàng baat la mu wax ci fondation bee ko yitteel na li ñu waxoon ne daa dof daa feebara ko yitteel ñeneen ku nekk ak ni nga ko jàngatee rek mais nit daal boo amee ci bu tel li war a toog ci kanam sénégalais yi kenn fayu la kenn forcé wu la nga toog waxtaan ak ñoom làkk wi nga jàpp ne lu bari ci réew mi ñoom la ñu dégg nga wax ci ak ñoom ko neexoon toog tegalay tànkam sol yëreem yu seer takk ay oram yu dul jeex làkki Pape Diouf dem mais defu ko dafa xalaat man sama maam ja nekk ngaa ngaabu te déggul tubaab xalaat maam yi baan ja nekk fële mu wax ak ñoom ci làkk bi ñu dégg bon li ci des na ku nekk ak voilà gis-gis ba nga tey am en tout cas daal exemple la référence la ci jigéenu Sénégal wax dëgg yàlla képp kuy jigéenu Sénégal te bëgg lu baax démb soo ko gisee war ngaa kontaan man nag li ma ci intéressé mooy daal mooy ñi feebar te leen di faj. Hmm. loolu man moom ah, seede la loolu moom na ci gën a dollee góorgóorlu. waaw loolu moom vraiment bu fekkente ne moom mi ngi ñuy dégg. da hmm. ci dollee gën a góorgóorlu. waaw waaw parce que àdduna loo am te amu ko wér. Hmm. day compliqué. te li ma ci gën a neex gi nga waajuram wu jigéen. day déglu rajo. xalaas gii du ko raw. malaat bu ñu jàllale fii. moom moo ko koy wax. man des fois mm, première dame woo ma ni ma ah sama yaay leen déglu. nee na nee nga nee na da ngeen a wax malaat sàngam. nu mu demee ma expliquer ko orienté malade bi ñu daal koy toppatoo. en tout cas daal moom mu en tout cas moom na xam ne elle est waaw moom nit ñi bëgg nañ ko parce que dafa sénégalais trop trop trop mm, waaw gars yi dañ ciy sànc seen euh, seen bopp ci moom ba pare man Ndiaye dama koy dégg muy wax euh, genre ma xaw a ma xaw a voyagé loolu ci waxam ji man dama tuxu ci wax ji parce que dama ko yërëm man ko ñeewantal ni ni ko gisee muy wax nit kese la liñ ko yenn yëpp diis mu baal ñëpp xam nga woyof waxtaan nekk nit kese man vraiment yàlla na yàlla sàmm ko quoi maa ngi koy ñaanal yàlla mu sàmm ko bu baax a baax a baax soso ak sosal yi amee ah, yooyu moom ak mais boo ko gisee mu wax rek nga xam kii nit kese abaa ah, et c'est très important. xam nga ñu ngi lay sosal. te mhm. sosal njaay di ma mhm. sosal réew mi fii ak sosalul la rek baaxoo. wallaay dëgg la dëgg la dëgg. waaw ah, fii ak saa ngay tàkkarnaase wu sosalul la rek liggéeyoo. dëgg la de kii <laughs> ab livreur la. Mhm. benn femme bu toog di liggéey liggéeyam di daan dooleem di ñafe. jël ko mu koy liggéeyal ñoom ñaar xam naa ne yàgg ñu liggéey ba miinante ba yàgg. mu jox ko 4 millions yi quelque xaw ma daal ni ko demal yóbbul ma ko banque ba. waaja dem Mauritanie di fa di di defar kilibam xam nga fële Mali. Mhm. di fa defar kilibam déglu ndaw si euh, Njaay. dem na ak sama xaalis te man damay liggéey damay kenn liggéeyu ma ak banque kenn financé wu ma kenn jàppalewu ma man dong may liggéeyal sama bopp cinquante mille laa déparé ba léegi nii. donc maa ngi nii li ma jaayoon depuis no octobre ba léegi dama ko doon dajale sama armoire chaque jour ma ne dama koy déposé. mais damay naan bàyyi bu mu gën a bari donc sama vente décembre bi yëpp ma décembre moom mooy mois wu commerçante yi damay jaay ay cheveux daal affaire yooyu en même temps may jaayale ay nen ak ay ginaar ak ay téléphones yëpp laay jaay. donc sama vente yëpp décembre bi yëpp laa boole noonu jox ko ko gardew ma lenn lu dul cent cinquante mille yu ma dese woon waroon ko jox sa envoyé sama yaay moom sax mujj cent mille rek laa ko mujj yónnee ma di cinquante mille sama xaalis bi yëpp laa ko jox pour mu déposer ma ko mu daw ak xaalis bi maa ngi nii sama liggéey arrêté na mënatuma continuer mënoo def dara da ngay déposer plainte rek bàyyi leen ñoom ñuy def seen ay recherche maa man yi tamit mooy loolu da ngay dem si ñoom ñu lay seetal di la wax dugg na fii génn na fii mënoo def dara donc moo tax ma ñëw si yéen comme seen rajo bi xalaas bi ñëpp a koy déglu ñu jàppale ma si ngeen publier ma ko foofu ma jox leen turam ak santam pour képp ku ko gis mu mën a mu mën mu mën ñu si jàppale. parce que il faut ñu gis ko ñu recherché ko jàpp ko parce que suñu bàyyee nii rek day yomb mu daw ak sama xaalis di ci dund xaw ma fu mu nekk man man sama liggéey taxade aussi. so c'est vraiment pas juste c'est très injuste. xam naa léegi li nga ne lu tax ma jël xaalis bu toll noonu yëpp di ko jox livreur mais c'est parce que dañoo yàgg di liggéey c'est pas la première fois sax ma koy jox xaalis bi mu koy déposé xam ma Dakar moom dafa xat. course yu bëri doo ko mën a def mais man ñoom lay liggéeyal même ay or su ma koy jënd sax ñoom ñoo ma koy jël benn agence la. agence la mais ñi ñi ñi ngi naan man naa euh, porte plainte agence bi mais man tamit agence bi bëgguma ko porte plainte parce que du agence bu mag agence bu ndaw la ki ko moom dafay taaba taaba moom tamit tey liggéey nànk-nànk xam nga su ma ko porté plainte su ma fayee mënuma fay te bu may fay tamit xëy na dina donc kii nii dong lañ mën a porte plainte ñu poursuivre ko wala ñu mën ko jàpp parce que tamit metti na trop si xol waaw maa ngi nii damay liggéey booba liggéey dafa arrêté xaw ma lu may def xaw ma fu may dem vraiment metti la trop métti seen waa kër yi ñoom yëg nañ ko seen waa kër yi ñu ngi dëkk Ndiaye mberees lañ dëkk benn village bu nekk Saint-Louis ñoom tamit yëg nañ ko nee na ñu ngi def li ñu mën pour que mu mën a indi xaalis bi mais man loolu sax gëw ko damaa gëm ni kay dañoo nekk di liggéey pour ko pour man ñu teg sama gémmin wala ñu seen doom mën a dem xaalis parce que tamit dafa yomb muy noonu daal ku ne ma sa doom ngay protéger. kii mooy commerçante bi nga xam ne wax dëgg yàlla cinquante mille la démarré di liggéey di dajale di liggéey di dajale mais livre bi dafa yàgg ak moom dañoo miinante yàgg na ko yónni ay or ak lu ne waaye bii nag du ko ko yónni mu see xaas bi da nga naan mu ana waa ji déet bala ñu yegg ci waa ji waaw femme bi moom loolu la séq ak livre waa ji waaw yónnee ko mu koy dawal ay course waaw. léegi li ma jaaxal mooy kay nu mu mën a yëkkatee 4 millions di ko jox ab livreur. ah xam naa du ko wóolu rek. boo xam naa nag livreur yaa ngi yóbbu lépp lool it. Mm-hmm. waaw waaw. ñu ngi indi ci euh, kii de confiance bi dox seen diggante. waaw léegi waa ji nu mu def 4 millions yi. déglu ko. yéen antanagum nice. yéen cool cool merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci encore merci encore une fois. yéen yéen nice waa gis nga dafa aare quoi. yéen merci beaucoup. yee sama fi laa ko defee Mali may laa ko defee Mali. yee yee en fait actuellement dama koy clip nii sax donc ci laa nekk nii ci tournage bi laa nekk en fait pour clip ku soxla yow partagé ko rek son bi na daw ko na daw na si ñëpp jot anto na si ñëpp jot. waaw na si DJ jot na si animateur yi jot ah képp kuy animateur rek animatrice na si jot. incha allah bu clip génnee dina la ko envoyé en même parce que dañu actuellement il faut ñu trouver un village fii nii euh, il faut ñu xool benn village fu ñu defee tourner foofu lépp scénario bi actuellement ci diggante xale bu ma bëggoon bu may bëgg la quoi en fait xam ni ma ko gisee ak ni ma ko bëggee ak ba ñu mayee ñu ba mariage bi am ko affaire yëpp donc loolu moo tax ñu bëgg ko yóbbu si benn village pour affaire bi a aare quoi actuellement yàq naa lépp yàq naa lépp lépp yàq naa ko mais actuellement man li may def xam naa ko léegi bu bu mu yaakaar ni dama jël xaalisam non non xaalisam mi ngi ci moom mi ci ma dinaa ko delloo amul benn problème amul solo amul solo ci wax nag tey li am actuellement euh, xam fi may te sama tànk moo tax ma def lii euh, li mu bëgg actuellement xaalis moo koy def ku ma ko mënoon ab actuellement doo ma ko jox parce que somme boobu mënoo ma ko jox Mbiri Ndiaye dëgg la xaalisam mun ma yóbbu ma ko banque banque yi tëj mun ma gàddu ko ab indi nga sama kër donte gis naa ne xaalis ba actuellement war naa si def samay projet donte moom su ma ko aboon dëgg la xaalisam la li may am am naa ko ba noppi xaalis bi naa ko delloo fii lépp loo fi gis actuellement risque la nit boo demul àdduna fii lépp loo fi gis risque da nga dem ak risque sama life dama ko demee ak risque te xam naa actuellement nu mu mel je sais je sais xam naa lépp xam naa lépp mu demee xam naa lépp nu mu demee actuellement am na ba pare léegi am na pare donc li ma lay expliquer rek mooy bu leen am dara bu am dara lu leen jaaxle donc juste xam naa donc yéen a ngi inquiété wu en fait mais ne vous inquiétez pas Béni Ndiaye dinaa dox dinaa maay soo sama dàll man dem ba këram jël xaalisam jox ba dolil ko xaalis amul benn solo. commerçante bi Mbiri Ndiaye la tudd. kii ab sàcc la sàcc. waaw parce que kii dégg naa xaw ma Modou Ndiol la tudd. xaw ma nan Ndiol su mooy waykat bu siiw bi nit ñi xam. mais ba tey du kii. du kii ci xam naa bu waykat bu bees la mais du def carrière moom. maa nga Mali di clip de. kii moom du def carrière moom. maa nga mari parce que nga jël xaalis àq. kenn du ko commencé carrière quand doo commencé sa carrière dugg ci showbiz bi nga xam ne coow kese la. Uh-huh. yow nga jël àq di di ko dugal ci biir showbiz bi. doy na waar. <laughs> ba pare naan est-ce que stratégie communication. eh stratégie. <laughs> doy na waar de. ah ba siiw na fi mu nekk nii te génnagul. ah mais. kii bi siiw na te génnagul est-ce que. mais mais ma kii su ne cëpp aéroport wala. à frontière ñu jàpp ko maa koy fay ba tegal ko. est que dina dugg ci dëkk bi. mais mais nag baan euh, lool tamit ni Ndiaye wax mën na nekk stratégie parce que américains yi dëgg balaa ñuy def clip muy génn dañuy fekk biir prison. ñu xam ne de daal laa koy conseillé ñu génnaat. Euh, bu ñu génnee son album bu bees am na benn événement bu ñu teg nu mu tuddati waay. ban. non comme nga génnee kii rek comme ni su ñu doon def jë stade. Euh, waaw waaw waaw waaw kii pour def euh, promotion bi. waaw am na nu ngeen koy woowee yéen kii. showcase wala. waaye yow kii nit la. lan la loolu la noonu noonu. déedéet séance d'écoute. séance d'écoute waaw waaw ok na ko defee central. <laughs> wala rëbës. xaw ma ko xaw ma ko ku fay fekk day yéeme ne. Eh. en tout cas tamit femmes yi nañuy bàyyi di denc yenn somme yi ci seen kër yi. waaw soo liggéeyee ba mat cinq cent mille demal versé ji ko. waaw lu mu banque ya xat-xat demal nga reste université ko dëkk bi léegi wóolu nit dafa wóorul kan ngay wóolu sa doom sax yenn saa yi da ko koy jox xaalis mu dem ak moom. banque yooyu sax bann war nañ ci wax man xam lu ma dul mën. Hmm. la sama xaalis di ko jëlee di rang. waaw loolu de loolu it problème la. dénk la sama xaalis mu moom ko mu leer ma ne man maa man maa ko liggéey. Hmm. dem di ko jëlee di rang. am na banque boo xam ne moom liggéey ne système boo xam ne fii nga toog ngay toog dugg ci sa compte retirer li nga bëgg a dem. te li soo ko ci banque yi ci ci da nga koy dugal ko ci yi xew léegi. te li soof ci banque yi Ndiaye. mooy boo yóbbu yenn somme yi ñu xam moom moom ngay indi. Hmm. kenn du la rangloo. waaw dañ lay wutale buntu buñ la jaar am na buntu am na am na buntu nga gisante moom mais boo ñëwee ngay jël si somme. noo def rang. mais ñaata banque ngay dugg gis fa juróomi guichet. benn cay dox. dëgg ñeneen ñi amul kenn ku fa nekk te duñ la wax lu tax ñëwul. ñu bàyyi soo bëggee bàyyi banque ba nag loolu foofu la problème bi ne. nan ñu bàyyi xel de. ah bi daa bëri ci réew mi. c'est nag problème bi mooy problème bi mooy fi met fi metti yëpp moo bari Ndiaye. Mm. ban kii ñaari jabar la kon yow da ngaa pare ci. sàcc bi nii sàcc yi ñëw. da ngaa pare waykat bi. waykat bi waykat bi kay duñ ci pare dañuy dañ koy xaar mu ñëw rek nañ xaar mu ñëw rek ba mu ñibbisee ak jàmm. affaire bi à suivre waaye kii dafa tëdd di nelaw. Mm. xam naa ca ñaareel bala aaye. braqueur yi ñëw dugg ci biir kër gi. mu dew di jëli armam ca aawo ba daa fàtte woon arme ba de néegu aawo ba <laughs> déglu Ndiaye maanaam mbir mi ni mu demee daal suñu këram këram gi yàgg na lool waaye man ci ay nelaw laa nekkoon bi ma leen bi may yéegee bay jóg nag boobu ñu ngi daaj buntu buntu werandaa bi xanaa ko ay côté ñi jàpp heure bi daal ñu ay côté une heure une heure quarante une heure cinquante. mais man bi ma jógee fekk sama ngànnaay maa ngi ko fa ngi fanaan sama néegu aaw bi dama ko fàtt bi may jóg dikk fëgg naa ko am sama ngànnaay am sama ngànnaay te ñoom ñu daaj daaj nañ ba dugg. indi yéen ak sëpp sëpploo ma seen yedd ak seen jaas yi waaye ci laa balisee ñu dajji bunt bi dugg ubbiloo ma coffre-fort bu ndaw bi mu ubbi ko ñu jël caabi ubbi bu ndaw bi bu mag bi waaye la fa nekkoon lépp ñu jël ko daal di génn gaaw dem xam naa daal diire buñ fi ay dix minutes quinze minutes côté loolu heure yooyu lañ fi def xam naa ne li dugg ci biir li dugg ci biir bâtiment moom man nañu ma dix wala onze am na ñu nekk ci biti di di tiire ay ay fetal di tiire daal noonu daal la affaire bi demee man noonu la ma dikkee surprise la ma dikkee daal bett na ma loolu dëkk Yërmande Dieng région Louga commune rurale Ngën Sarr arrondissement Sakal mm-hmm. waaw bi ñu dugg see daal ñu ñëw ci man ñaar ñett dugg ci biir bâtiment bi di dix ngay estimé dix onze xam naa ne ci lay toll biti bi nag moom maanaam man xaw ma fa dara ba xaw ma ci biti bi dara quoi mais nag ñi leen dégg nee nañ oto lañ yore. te am nañu am nañu doon tiir ay bal ci biti mais biti bi moom xaw ma ci dara moom. xam naa ne dañuy estimé ci ay neuf dix onze côté yooyu daal. waa un million neuf dix onze côté yooyu la. bi ñuy tiiree maanaam bi ñuy bi ñuy génn dañuy tiire maanaam waa nit ñi ak fekk dem nañ mi ngi noonu. yóbbu nañ xaalis yóbbu nañ ko yóbbu nañ ko pour ay ay dix on voire voire onze millions ci région de Louga bi la. Ndiaye. waaw xaalis lu mu bari bari yóbbul banque. waaw moo gën a wóor. moo sécurité moo gën a wóor xam nga banque sax tey bu ñu ko fekkee. jël naa rang eh, bàyyi ma rang ñoom ñoo lay fay. waaw bàyyi ma rang rek. ah yaa ngi dellu ginnaaw bi. <laughs> bàyyi ma rang. waa déet man lu ma jaaxal moom nu mu mën a yoree ngànnaay ba pare. Hmm? bàyyi ko ci aaw ba dem ci ñaareel ba. non da xam naa da xam naa néegu awa ba neex rek mu ah, faatu non xal ban genre ban genre yor na ngànnaay ngànnaay moom réew mi doo ko yoroo këy ndax lu mu yor autorisation port d'arme wala autorisation de transport daal la wax xaw ban ngànnaay la yor lay wax ah mais Ndiaye lépp nag mu ngi ci biir këram waaw mais bu dee port d'arme moo doo tàggoo ngànnaay mais ci sa biir kër. mën na ko faa faa néeg ak néegu waaw d' accord mais di port naa yor. waaw <laughs> xëy na ndax da koo nii gi amul ko njëriñ. non non xam nga aawa yi nag ñoom ñooy booba ba mu ko fi fàttee aawa bi waroon naa am xel mu delloo ko ko. lépp aawa yi la en tout cas am na aawa boo xam ni mu ngi ci ay problème mm. borom këram da koo gis mu takk ay or. Mm. borom kër gi laaj ko foo jëlee or yi awa bi liggéeyul xëyul gontul. Mm. te du génn kër gi. Ah. te mi te problème am na ci kër gi ndake waa ji dafa takk ñaareel ñaareel bi am complicité ak awo bi lu garaaw. lu garaw complicité boo xam ni aw bi day dawal compréhension fu mu toll ci boroom kër gi bu ayee ci moom ne ko noo ki nga takk xale la profité wu leen xale la xale la deux ans aw bi di may ayam ñaareel bi xale la xale la xale la mu koy may ndeke musu koo may ay hmm? ndeke awo bi heure bu borom kër gi ay seet ci moom mu ne ko demal ci a ñaareel bi xale la ak yooyu awo bi da koy jox dix ku koy jox ñaare bi da koy da koy jaay ay bi dix hmm? <laughs> mu mu dajale loolu ba mat lu mu jënde ordi waa ji nag yooyu yëpp méttiwu ko location daay li ko metti mooy lu tax moom ñu ko doon jaay moom <laughs> dix mille loolu moom il faut ma indi ko bi <laughs> nee na moom deux ans ñu koy jaay aaw yi da doon jaay ayam bien am ay bien moom takk ay orom taxaw ne woo ñaareel bi toog di ko sant di ko gërëm di jaay ji toog di jooy awa kenn li yàlla non mais kii na sax dafa kii li ko daal tuuti. dix mille yi livraison waroon na cee bokk. à lañ la ko jox kay. Ndiaye da lay def ni kii de loolu lay def. ak kii mu li nga liir daal lay def. ma ca kii moom ma nga ca boppam moom. ay film rek lay seetaan. ba mu amee douze ans la ko tàmbali seetaan ba ni mu amee nii vingt cinq ans et quelques. film yi nii mbër la woon dem na ba fu mu dem di bëri sax dañ koy daan daan yu ñaaw. ah kii kii luy problème am luy problème am. yàgg naa daan de day def masturbation. dafa métti trop trop trop trop trop wax naa sax ñëw si yéen di ko wax parce que dama nekk benn xale bu nga xamante ni ay vingt sept ans sax aw ma y' a plus de presque quinze ans man daal dama am benn problème sama problème mooy problème masturbation quatorze ans treize ans wallaahi laa commencé man li sama problème mooy film pornographique yi ngeen ba am si kàddu gi loolu rek mooy sama problème depuis bu may nekk booy dama ko doon seetaan tout temps tout temps tout temps bu muy am treize ma ko woon du ma toog deux jours trois jours te seetaan lu damay dem toog xoolal julli ñaan yàlla naan lii yàlla naa fa bàyyi yàlla naa bàyyi film pornographique may seetaan chaque jour di wax di wax yàlla naa def nii mais parfois mun naa xoolal xeex ak sama lii nag bu un mois yooyu noonu mais su ma siy ñëwaat du xam sax la mu indiwaat day mel ni kuy tux rek wala kuy def leneen naan sàngaar yooyu chaque jour mën na na mais su ñu man ba moom mu dal franchement jeexle naa trop trop trop trop trop ba ma defu dal su ma wéetee sama nekk sama xel ci loolu lay nekk damay toog di ko seetaan jib bi sama bopp ne la moo tax may def lu salte lii bu fi muy pornographie bi amul benn njëriñ yi rek toog de suba benn jour def ko plus de deux fois wala trois fois benn jour dafa dem ba benn essence sax benn force physique amatuma dafa dem ba mun naa football samay moroom affaire yi te man amoon naa talent football rek laa def mais damay jékki-jékki rek du xam sax lan la soo na ci biir terrain affaire yi noonu sport sax dama dama dul am envie sax defati sport du ma am envie defati sport bëre rek laa doon def tamit bëre mais day dem ba nga xamante ni sax sama bëre ñoom dañuy jékki-jékki daan ma daan yu bon yu ñaaw nga xamante ni damay dem ba moo tax may tig naan man su ma demoon sax léegi ba tax ko soxna léegi ça veut dire sama jabar du ma ko mën a dara daf may traumatisé a baax a baax ma ngi leen di ñaan ngeen wax ma lan moo si solution nga xamante ni mën a tax ko bàyyi ko ba mu jeex takk takk takk <clears throat> dafa dem ba même site yi même site am benn site bu xam ne mu dafa dem ba nga xamante ni site boobu sax mu demee bu diw foofu vidéo bépp vidéo bu ma ñëw bu ma seetaan dama naa ah li seetaanoon naa ko dama ko seetaan naa rek te xoolal yow yi ni ñu bëri si site day dem bu vidéo bu ma dugg rek nga naan mu li seetaan na xaaral ma seetaanaat ma dem may dem ba xam léegi dama phrase yi boobu dox sax léegi mënut si kër xam naa su ma tuuti damay sonn. xalaas. day na waar de abaa dégg nga kii ku mu bëreel ñu daan ko nee ay daan yu ñaaw lañ koy daan. ndax yooyu muy seetaan moom kay yàgg naa daanu moom. Ah, de affaire kii la moom. waaw yàgg na ci man li ma caaxal mooy dafay seetaan nee na dafa wër ba film yi fi ñu toll nii mënatul seetaan benn bu bees. Mhm. bu ñëw rek fekkoon mu seetaan koo pare. Mhm. man de mos naa toog ak sama benn. Euh, euh, sama benn grand fii. Mhm. hors classe bi quoi. xam nga bu ñu ci classe bi moom euh, dañuy wax affaire professionnelle ak yooyu. mais hors classe bi toog naa fii ak sama benn grand. <laughs> xool kii xool kii nee na treize ans la am. allo président représente kodoro ko barak sandaga ru sans ru ru ru président de la République ani balaa République mu résidence du président de la République bi nga xam ne mooy demeure historique située dans le quartier Dakar Plateau capitale du Sénégal construit en 1902 oui sama dépale ba xaw naa yàgg la mu nekk la résidence officielle du gouverneur général de l'Afrique occidentale AF Léopold Sédar Senghor Diatta 1964 Abdou Diouf 82 Abdoulaye 2012 Macky Sall depuis 2012 mu ñam fi ñëwaat fi nu xaarit ba xam kii woote bëgg a jot président de la République ko kala doona fan lay woote salaamaaleykum salaamaaleykum allo wa maaleykum salaam sëñ bi na nga def sant yàlla baa joxe sant beeg fi ngay woote eh, Moussa Diop ancien directeur Dakar Dem Dikk. Moussa Diop Moussa na nga def. ça va bien vous allez bien. Diop lu waral sa woote ci palais euh, je vais avoir le président de la République. Macky Sall président est un kan moo la wuyu. mais monsieur monsieur Sow c'est n'est-ce pas Sow. non dama lay wax rek. mais monsieur Sow comment peux-tu tontu naka ngay tontu ni euh, kuy woote ci biir palais bi. man euh, Diop. non monsieur Sow am na yoo ma rek déglu ma rek bu fekkee da nga dañ la jox sama tournée la bu ma woote ci biir palais bi. nga di ma tontu tontu ñàkk fayda yii loolu baaxul. mani ndax yaa ngi dégg. non maa ngi lay dégg à bu baax. boo amee looy wax nga wax ko mu gaaw. non non non ni ngay waxee baaxul. parce ah. que bale bi su fekkee dafa am leneen looy liggéey nga wax ko. mais ah, naka la nit di woote nga di ko précipité comme ça non. waaw te bul fàtte ne yaa fi waxoon autoroute Ila Touba bi dañ ko waroon def Ila Fouta. loolu sa yoon nekku ci la. parce que il am nga looy wax am na lu may wax moo tax may woote fii. wax ko gaaw. Macky Sall bu ñëwee ne ko à part bu la bu la dàq ci foofu ba pare na la dàq ba pare sama première chose loolu la ñaareel ba mooy nit ki boo fekkee na nga ko dàq ci place am liggéey la toog nga dàq bu ko dàq sans droit loolu bu mënta dox. qu'il me paie mes indemnités. quelle indemnité qu'il me paie sa yoon yow. man waxuma yow dama la yóbbante rek. sonn ah c'est pas normal ça. xale yi pour ñu am lu ñu kuusoo sax damay mujjee ñu jox kuusu xale yeeg yooyu. ah kon toll nga foofu. sax pour ma am ko damay moo woo sama xarit yi pour ñu pour ñu ay ay café. kon toll non non bien sûr. ah ma paie mes indemnités. ah baax na am réew avec lui il faut me ruiner. nit ba nga tegee ci place da nga fay fa lu rafet. ngir jóg boo fa jugee. ma paie mes indemnités. ma ne Vogue privé je ne. tu vois ma. waaw waaw léegi votre correspondant ne peut être pour le moment voyez après ultérieurement léegi coupé naa la. ba ci doon baabu ne. jàkkuroos fi ne. boo ne jërëjëf je je daal jàpp yéen. de ce mardi 19 janvier 2021. le ministère de la Santé et de l'Action les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1443 tests réalisés, 168 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 11,64%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 54 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée aériennes, maritimes et terrestres et 114 cas issus de la transmission communautaire ont été répertoriés et répartis comme suit. dans la commune de Kaolack, 9 à Louga, 8 à Touba, 5 à Richard-Toll et à Thiès. 4 à Dakar Plateau et Matam, 3 à Dieuppeul, Mbour, Mermoz, Nioro, Ouakam, Rufisque et Yoff, 2 à Diourbel, Fatick, Kanel, Liberté 5, Mbao, Ndofane, Nord Foire, Point E, Tivaouane et Tivaouane Amitié 1 Castor Cité Batrin Dagana Derklé Diofior Gueule Tapée HLM 5 Grand Yoff Keur Kolda Linguère Mamel Mariste Médina Ngor Waguñaay Oussouye Parcelles Assainies Podor Saint-Louis Sangalkam Sokone Thiloye et Yeumbeul 117 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris 47 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation 10 décès ont été enregistrés ce lundi 18 janvier 2021 l'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable À ce jour, 23 392 cas ont été déclarés positifs, dont 19 531 guéris, 536 décédés, donc 3 324 patients sous traitement. Le ministère la Santé l'Action sociale présente ses condoléances aux familles éplorées et souhaite un rétablissement aux patients encore retenus dans nos services. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective tout en leur faisant les recommandations du jour. Prenez soin de vous, de vos proches et de la communauté et veillez sur les conseils de ce matin. Accès autour du port correct de masque. Un masque doit être bien ajusté, couvrant la bouche et le nez. lavage fréquent des mains à l'eau et au savon ou l'usage de gel de qualité pour la désinfection de vos mains. Également, s'adresser de manière précoce en cas de maladie au personnel de santé qualifié ou se rendre au niveau de la structure sanitaire la plus proche. Enfin, les malades suivis à domicile doivent également respecter les mesures barrières afin de ne pas disséminer la maladie dans leur entourage. Je vous remercie de votre attention.